الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لم تبور وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان هكذا كانوا يصومون وهكذا نصوم نحن يومنا ليس كيومهم
وليلنا ليس كأمسهم قصصهم في الصيام ترددها نرددها نتحدث بها ونتكلم عنها يعرفها أكثرنا ولا يطبقها إلا القليل القليل منا يستقبلون ونستقبل كان سلفنا الصالح من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان يهتمون بالشهر رمضان ويفرحون بقدومه كانوا يدعون الله أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه أن يتقبله منهم يستقبلونه بالتوبة النصوح والعزيمة الصادقة على الاغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة سائلين الله الإعانة على حسن عبادته بينما نحن نستقبله بإقبال المتناهي على المحلات والأسواق للشراء المواد الغذائية من عصاعير وفطاعير وأقياس من الأرز والمكرونة وكأننا مقدمون على السنوات العجاف هذا من جهة ومن جهة أخرى نستقبله تستقبله بعض البيوت بتحضير الورقة والقلم لا لكتابة جدول تنظم به وقتا وقتها في رمضان لالتزام بعبادات والواجبات الدينية التي يجب أن يؤدها وإنما للتسجيل مواعيد المسلسلات والمسابقات والقنوات التي تس التي ستسب عليها للتنسيق فيها للتنسيق فيما بينها تبعا من حيث المشاهدات وكيتي الله سبحانه وتعالى ginnaaw bu ñu tàmbalee ci sunu turu sunu turu boroom ñu ngi bugg a leeral lenn ci saxaaba yi nu ñu doon wooree ak ñun nu nuy wooree seen bis ñoom nuroowul ak sunu tey seen guddi nuroowul ak sunu démb ay histoire la yoo xam ne dañ koy nettali guddi ak bëccëg di ko waxtaane partout ci place yi ñuy defee waxtaanu diine waaye lu ëpp ci ñun xam nañ ko waaye ñu néew ci ñun ñoo koy jëfee yastaqbiluna wa nastaqbil ñoom dañ daan taxaw seentu weer ñun tamit ñu taxaw seentu weer waaye ñoom nan lañ doon séentoo ak ñun naka la ñuy séentoo ñaar ñépp dañuy séentu كان سلفنا الصالح من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان يهتمون بشهر رمضان صحابة الكرام ñi waroon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam ak ñi leen toppoon ñu yittewoo woon weeru koor lañ dañ daan bég ci dikk gi mu dikk kontaan ci torop dañ daan ñaan yàlla sax mu may leen ñu fekke ramadan waaye dañ daan ñaan yàlla mu nangul leen li ñuy def ci ramadan naka lañ doon teeroo weeru koor mooy tuub naka lañ doon teeroo weeru koor mooy tuub tuub bu sell ak dogu dogu gu dëggu ci góor góorlu ba mën a dundal weer wi ak ay waxtoom ci ay jëf yu baax ñoom dañ doon ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dimbali leen ba jaamu yàlla yiñ ciy def sax nañ ko def ci ngën gi rafet nu mu gën a rafete ñun nag danañ teeru ñun tamit waaye ñun naka la ñuy teeroo weeru koor bu njëkk mooy tey mooy aljuma suba mooy samedi waa Sénégal lenn ci ñoom suba la ñuy woor nee nañ kon tey ajjuma gi bu dara sedd na lépp tàng nañu tukki tukki yi sore sori mooy yàlla ndax weeru koor bu ñëwee dootuñu mën a moy na góor ñi jàpp ci loxo jigéen ñi na jigéen ñi sol yére yére yu bon na soirée yi takk na dëkk bi tàng Dakar na dor paa bu kan nelaw ñun noonu la ñuy teeroo weeru koor ñun hakaza nahnu nastaqbilu sahru ramadan mooy naa mooy yàlla balaa weer wi ñëw lépp lu bon naa ko def su may naan naan naan naan gu mujj nga xam ne damay dugg ci baar ne kees yi na ma sut man naan ko man ak samay copain ba mu jeex léeg-léeg sax nga dégg ku ne maay peetey guddi gi c'est parce que bon weer waa ngi ñëw dootuñu ko fu mën a def occasion la ixwaan yi ndax lool rek la ñeneen ñi ñoom dañuy màng jëm ci marché yi bies dooro yi fi ñuy jaaye lekk mab ay kees yi duguba ki mboq ak ceeb ay chocolat ak pain lu dul jeex mu mel ne dañ leen ne hee atum xiif lañ jëm jël leen lekk denc seen kër ñun noonu la ñuy teeroo weeru koor ñun di ko lekk fàtte miskin yi amuñ ci cër ñee ñoom ña ngay préparé weeru koor ci mooy yàlla ñii ña ngay préparé weeru koor ci lekk ak naan mel ne dañ leen ne atum xiif ba yuusufa géntoon moom mooy ñëw denc leen lekk geeg naan gi su ngeen di ndogu na leen lekk ak naan wër na ngeen ndogu ba mu des hakaza nahnu nastaqbilu sahru ramadan ñeneen ñi ñoom da ngay gis góor gu wàcc borom kër gi daan ne soxna si may ma këyit te nga ñëw toog nga woo xale yi ñu ñëw mu ne ko këyit amu fi mu ne ko daggal ci xale yi kaye yi ñuy jàngee nga indi big woo leen ñu ñëw ñu zappe télé bi mu commencé tàkk ban théâtre mooy gën a neex ci weer wi ban chaîne moo koy teg ban film mooy gën a neex ci weer wi ban chaîne moo koy teg ban ban ban ñooñu seen programme au lieu ñu programme ci fooy naka la ñuy jaamoo yàlla ci weer wi naka la ñuy mën a yeewoo fajar ci xëdd julli waxtu yi jàng alquran baada salaatil fajri wal azkar la mooy ñooñu seen préparation mooy ban théâtre ban film ban ban ban ba ñu xam seen yépp heure bu ñu koy teg ñu départ di ko koj yasumuuna wa nasuum ñoom dañ daan woor sahabatul kiram ñun ñuy woor waaye nañ xool ñoom nuñ doon wooree ak ñun ndax la ñuy wooree kaana salafu saalih yasumuuna ayaamahu wa yaxfazuuna siyaamahum amma yubtiluhu aw yunqisuhu min la min allaxwi wallahwi wallaabi walxiibati wannamima walkadibi wa kaanu yaxyuna layaalihim bilqiyaami wattilaawati alqur'aani kaanu yataahaduna fihi alfuqaraau walmasaakin bilsadaqa walixsaani wa itcaami altacaami wa iftaari alsaaim saaimin ixwaani salafu saalih buñ daan woor ñoom dañ daan wattu seen koor lan mooy wattu koor mooy bët yi day woor nopp woor bakkan woor loxo woor tànk woor cër yëpp woor ndax woor du lekk bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi sëy kese ñoom noonu lañ doon wooree dañuy wattu koor gi waaye di dundal koor gi di moytu lépp lu koy yàq ci mboosóor waxi caaxaan ñun dañuy woor ba pare di animé di maye. léeg-léeg nga gis ci benn seenu télévision wala benn grand place waa ji woor ba pare naan léeboon waxi caaxaan wax boo xam ne tegoo ko fenn te yaa ngi woor ñeneen ñi toog di déglu min al laxwi wal lahwi wala fo di lido damye sorti dem géej tefes ànd ak xale jigéen yi di layee ne dañuy dàq koor saxiix wax nañ dëgg kalimatu xaqin araadu bihi lbatil dañuy dàq koor ku war ànd ak ay xale yu jigéen kay wax dëgg yàlla dàq nga koor ko kay saxiix wallahi waxu dëgg la bu la yàlla waxal dëgg da nga bëggoon tromper sa borom waaye waxloo na la dëgg munoo woor ànd ak ay xale yu jigéen wala ay xale yu góor wala toog ci grand place yi wala toog ci kanamu écran télévision di seetaan yenn film yi wala ngay seetaan yenn clip yi wala yenn suñ waxee nga ni da ngay dax koor ñoom dañ daan moytandiku jëw rambaaj fen waaye dañ daan dundal seeni guddi ci naafila ak jàng alquran waaye tamit dañ daan taxaw ci weeru koor ci jàppale ñu néew doole faqiir yeeg miskin yi ci sarax ak rafetal ci ñoom ak di joxe ndogu ñun nag mbokk yi ñun naka la ñuy wooree wana naamu nahnu fi nahaarihi ñun bu ñu jullee fajar ba pare dañuy tëju ci biir nekk tal ventilateur wala climatiseur di nelaw ba ñu dégg allahu akbar allahu akbar dog jot na ñépp doog a jóg yeew ñun noonu la ñuy ñun noonu la ñuy wooree ñun dañuy dundal bëccëg bi ci nelaw wala ci jëw wala ci rambaaj ba pare jàpp ne loolu li yàqul koor ndax wax bu sew bii ma wax wax bu ndaw bii naka lay yàqe sama koor lii lu tuuti la dañuy fanaan ak guddi sax yenn ci ñun naafi la waaye bu bëccëgee ñu yàq ko ci lan wala ñu fanaane guddi seetaan film yu bon ba fajar jot ñu jàpp doog a dem jàkka ja ñëw doog a tëdd ndeysaan ñee ñoom dañ daan dundal seeni guddi ci naafi la ñun ñuy dundal sunuy guddi ci toog ci ay grand place ak seetaan film ñee bu bëccëgee ñu dundal seen bëccëg ci jàng alquran ñun ñu dundal ko ci ay sorteeg toog ci ay grand place di dem yi ixwatal iman yaxzuun wa naxzu ñoom dañ doon jihaad takk seeni fas di xare ci weeru koor ñun tamit dañuy jihaad dañuy takk suñuy fas wala ñu war suñuy oto di jihaad waaye fi sabili man kaanu yujahiduuna fiihi anfusahum bi taa'ati llahi wa yujaahiduuna a'daa al-islaami fi sabiili llah litakuuna kalimatu llahi hiya al-ulyaa wa yakuunu ddiinu kulluhu lillah faqad kaanat gazwatu badrin al-kubraa allatii intasara fiihaa al-muslimuuna alaa aduwwihim fi l-yawmi as-saabi' ashara min ramadaan wa kaana gazwatu fatxi makka fi ishriina min ramadaan حيث دخل دخل الناس في دين الله أفواجا فأصبحت مكة دار الإسلام mbokk yi saxaaba yi ñoom weeru koor bu ñëwoon dañ koy def weeru jihaad ci xeex ak seeni noon pour samp kàddu yàlla pour kawel diine l'islam loolu ñaari mbir war ngeen ko cee jàng badr fukki fan ak juróom-ñaar la woon ci weeru koor ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett ñu jàkkaarloog armée boo xam ne ay junni lañ yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa ñaan ba kol gi mu tegoon ci bopp bi dafa wadd Aboubacar jël kaala gi tegaat ci kaw bopp bi yonent bi ñaan ba kol gi daanuwaat Aboubacar jël ko tegaat ne ko doy na yàlla du sànk sa ñaan ci weeru koor la woon mbokk yi keroog fatxu Makka bi Bilaal di yëg ci kaw kaaba gi di nodd noddam boobu nga xam ne ci la lislaam tasaaroo ba tey loolu ci weeru koor la woon ñun jàpp nañ ne ku woor da nga war a torox lëndëm ñuul kukk doo sangu doo peñawu doo diwu sooy wax sax doo yëkkati sa baat limaasa ana saim man dama woor maadaama ñee xoolal ñoom ci koor ñuy jihaad ak seeni noon ci naaj bu tàng jër ay jaasi di dal ci seeni baat ñun mbokk yi ñun tamit danañ jihaad de wa nujaahidu nahnu bin nawmi jihaadal mustaqbal fi nahaari allahu akbar ñun kan la ñuy jihaadal mooy ginnaaw julli fajar da ngay ñëw doo jógee jàkka ja doo summi sa daal da ngay ñëw rek prolongé daan ne régler sa réveil ne ko incha allah timis nga dépassé jihaad ñeneen ñi lan la ñuy jihaad mooy takk seen dàll gàddu seen i basan utali tefesu géej ñooñu loolu mooy seen jihaad ñeneen ñi lan mooy seen jihaad mooy takk seen dàll woddu seen i sër utali grand place su xale yu góor yi ñu yendoo mbaxal ba ngoon jot ci yenn borom kër yi nga xam ne duñu ay responsable xamuñu lan mooy borom kër xamuñu lan mooy yàlla subhanahu wa taala mbokk yi ñun sunu jihaad mooy ñuy jihaad guddi di seetaan télé ba bët set sunu jihaad mooy góor ña jigéen ñi jaxasoo ba bët set ci ay place publique ay banc public ay place ay jardin daje ba guddi jot ay soirée ñun loolu mooy sunu jihaad yutimuun wa naakul ñoom dañ daan defar ndogu di jox ñun ñu ñuy lekk ñun nag lekk kese mooy sunu métier ñun ixwaani kaana alsalafu alsalih yahrisuuna ala itaami altaam wa yuqaddimuunahu ala kathirin min alibadat salafu salih ñi àndoon ak yonent bi wër ko alayhim salatu wassalaam ñoom lan moo doon seen mbébét ci koor mooy di jox nit ñi ñuy lekk wa yutimuuna taam ala hubbihi di joxe nit ñi di lekk ñu boole ko nag ak ay jaamu yàlla yu baree bari ginnaaw joxe lekk googu jaamu yàlla yu bari ba pare waa ji di joxe lekk fexe ba gaa yi suur fexe ba ñu xiif am lu ñu ndogoo miskiin yeeg ñu baax ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ne woon yaa ayyuhan naas afsu salaam wa atimu taam wa salul arham wa silul arham wa sallu billeyli wannaasu niyaam tadxuluna aljannata bisalaam saxaxahu al albaniyu ki yàlla yónni woon ci ñun moo leen ne woon ñoom tasaare leen nuyoo tasaare leen jàmm jox leen nit ñi ñu lekk jokk leen mbokk julli leen guddi fekk ni ñaa ngi nelaw ngeen dugg aljanna ñoom aljanna lañ bëggoon dugg qala baadu salif baadu salaf la in adu asara min ashaabi fa utcimuhum taama taaman yastahunahu ahabu ilaya min an atqa ashara min min walad ismail kenn ci ñoom sax wax na ci ay waxam ma woo fukk ci samay àndandoo samay xarit ma jox leen ñu lekk ma laaj leen ban plat ngeen bëgg ñu wax ma ma jox leen ñu lekk ba ñu suur naan ba mandi moo gën ci man ma goleer ci doomu Ismaïl fukki nit ci doomu Ismaïl fukki nit ma jox samay moroom ñu lekk ba suur ci plat bu ñu bëgg moo ma gënal man ma goreel leen wa kaana kasiru min as-salaf يؤثرون بفطر وهم صائمون منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وداود الطاعي ومالك بن دينار وأحمد بن حنبل وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين وربما علم أن أهله قد ردوهم عنه فلم يفطر في تلك الليلة صحابة يوم داو يبغى لك يوم كسر قالوا نيون suñu problème yëpp mooy ndogu des na dix minutes ñu tërëx-rëxi uti kër ga ñenn ñi sax duñ dem julli ji timis jàkk ñëw ndogu bi fu mu toll ak kanam gu ñuul ay boo fekkee ni soxna si tegagul cin bi keroog musiba mooy am xoolal ñii ñoom daawuñu bëgg a lekk ñoom kese ñoom ak nit ñi rek seeni mbokk Abdullah ibnu Omar moom da daan bëgg di ndogandoog miskiin yi ba waa këram yenn saa yi sax bu miskiin yi njëkkee ñëw ñu dàq miskiin yi mu ñëw xam ne dañoo dàq miskiin yi keroog du ndogu day continuer ndax mer bu muy mer du ndogu wa kaana min alsalaf man yutcimu ixwaanahu taam wa huwa saa'im wa yajlisu bi xidmatihim wa yurawwihuhum minhum alxasan wabnu mubarak am na ci ñoo xam ne dañuy woor ba pare ba ngoon jot ñu woo seeni xarit ñëw leen ndogu kër ga ñu ñëw ñu topp ñooñu di leen jox lekk di leen jox naan ba ñoom fàtte ne dañoo wooroon sax ñoom du ñu ndogu ci ndogu bi mbokk yi xabaar bu doy waar xista bu yéeme ibnu abi adi sama daawud ibnu abi hind arbaina sana laa yaalamu bihi ahlu waa ji tudd daawud ibnu abi hind woor na 40 ans ci biir këram waa këram xamuñu ne kii day woor wa kaana xarrazan yaxmilu maahu gadaa'uhu min indihim suy génn nu mu daan def fajar uude la woon uude buy génn day yóbbaale lekk ñu jàpp ne da koy añejee su demee ba ci yoon bi mu saraxe ko mu yenn marché ba ngoon waa waa marché bi duñ ko gis mu lekk lan la ñuy wax ibnul jawzi moo leeral loolu mu ne lu tax waa ji woor 40 ans kenn xamu ko mu ne waa ji marché la doon yendu waa këram yaakaar ne añ na marché su demee këram day bàyyi ba gee jot reer jot mu ñëw reerandoog ñoom ndeke ci loolu lay ndogu waa marché jàpp ne waa kër ga jàpp ne marché la añee 40 ans waa kër gi xamuñu ne mi ngi woor nanu xoolaat suñu bopp jaamu yàlla du ay wax kese ay jëf la yoo xam ne boo ko jëfulee da ngay perte innama hiya amalukum uxsi xaalakum fa man wajada xayran falyaxmadillah wa man wajada gayru zalika fala yalumanna illa nafsa alhamdulillahi waxda wala nacbudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ixwat aliman ñoom ci weeru koor sahru ramadan lan moo tax ñu tuddee ko ramadan mooy tàngaay boobu nga xam ne la nit ki di yëg ci biiram ci fani weeru koor wala doom bu tàng boobu nga xam ne boo ci defee nen mu ñor wala pombiteer mu ñor wala suuf soosu tàngaay boobu du la bàyyi yow jullit ci weeru koor di ànd ak yow di lakk say bakkaar ba nga set wicc boo continuer ni ci woori ba koor gi jeex moo tax ñu tuddee ko shahru ramadan kon ndax xam nañ ñun li ñu am perte na ki weeru koor jot keroog ba yonent bi saa sallam di yëg ci min baram bisu ajjuma mu wax amin amin amin mu toog mu julli pare sahaaba yi ne ko yonent tey de def nga loo xam ne jaaxal nañu torop mu ne lan laa def ñu ne da nga yëg ci minbar bi nga wax amin ñetti yoon mu ne jibril moo doon ñaanal alkande ñetti nit may nangu ñaan gi man yonent bi bokk na ci ku fekke weeru koor te fexewul yàlla baal ko ixwaani yaatakifuun wa na'takif ñoom dañ daan itikaaf ñun ñuy itikaaf sahaaba yi dañ daan itikaaf ñun ñuy itikaaf maanaam ñoom lépp luñ doon def ñun ñu ngi koy def waaye dafa wuute comme ni asamaan ak suuf sorante suñu jëf ak ñoom noonu la wuute kenn ci ñoom ci sahaaba yi ak ñi leen toppoon suñ daan itikaaf ci fukki fan yi mujj ci weeru koor dañuy sangu ba set sol yére yi gën a taaru yu ñu am xeeñu parfum ba xeeñ bàyyi seen kër nafaqa départ utali ji jàkka ji kenn du leen gisaat loolu ñu ne weer yu feeñ na te loolu buñ koy def dañuy nëbbu duñu bëgg kenn yëg ko ñun tamit nag danañ itikaaf waaye fan lañu itikaaf ci marché yi fukki fan yu mujj ci weer ko fu nit ñi nekk ci marché yi ku nekk ngay xool dàll yoo sol yére boo sol laafa boo teg sa bopp noo kasee couleur bi jigéen ñi waxi noppi góor ñi waxi noppi paayaa ngay ñawlu ay caaya xale yu góor yi ñu ngay xotti ji ay jiin ñun loolu mooy sunu itikaaf ci marché yi lañ koy defee fil aswaq allahu akbar lu tax ndax feet bi jege si na ñu commencé ñun lan mooy sunu itikaaf commencé taf ay ay pancarte ce soir jouru tabaski au nangam femme libre ñun loolu mooy sunu itikaaf ñee ñoom ndeysaan ñoo nga itikaaf fukki fan yu mujj ba pare ñu ngay sujjoot di jooy pour yàlla nangul leen seen itikaaf am na benn borom xam-xam bu romb ay nit yuy def soirée ci bisu korité mu ñëw xool leen ba ci yàgg daal ne ndax am naa kàddu ma jël ñu ne waaw mu ne yéen wooroon ngeen ñu ne waaw waaw wooroon nañ koy mu ne yéen ñëpp ñu ne ñun ñëpp woor nañ mu ne am naa laaj ñu ne luy laaj mu ne ndax yàlla nangu na koor gi gaa yëpp sëgg jàpp seen dox ah wóoruñu de mu ne ndax bu yàlla nangoo koor gi nii la ñuy santee yàlla bu ko nanguwul ndax lii jaadu na te loolu rek moo am woor nga ba ji koor gi jeex yàlla nangu na ko wala nanguwu ko su ko nangoo lan moo la war su fekkee buur bu toll ne yàlla nangu na sa koor yow loo war a def da war a fecc wala da nga war a woy wala da nga def organiser soirée wala da nga ko war a sant bu fekkee nanguwu ko nag kon du la war te yii rek moo ci am yal leen yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko kon mbokk yi nañu fecc kanam yi nañu leeral dënn yi yaatal xel yi ak xol yi ñu xam ne ramadaan la nekk yonent bi da doon wax yow mii def lu baax bismillah yow mii def lu bon arrêteel ñoo ngi soññ jaaykatu restaurant yi ndékkikatu 10 heures yi ñi añ 2 heures ak 1 heure wallahi al azim jaay ci weeru koor restaurant doo ci jële lu dul ordonnance boo fajoo ci añ ci weeru koor ne lëngu ponkal xale bu góor dara dalu la ak xale bu jigéen doo ci jële ci lu dul ordonnance boo fajoo ci weeru koor gi dina jeex nga ànd ak nekk ak nit ñi wooroon doo leen ëpp benn centimètre ci doole doo leen ëpp dara lu dul loo leen di ëpp ay bàkkaar yu tegu sa kaw naka la ab jullit di añee ci weeru koor naka la ab jullit di jaayee restaurant ci weeru koor léeg-léeg sax nga dégg journaliste yi di wër ñëw ci jaaykat restaurant yi nga dégg ñu ne non koor gi moo gën a dox ndax lépp mu dafa yokk ci ay jullit dëkk boo xam ne nee nañ quatre-vingt-quinze pour cent musulmans nanu ragal yàlla nañ am xorma ci yàlla nanu rus yàlla nanu rus yàlla wàññi bakkaar yi ak dëgër bopp geeg du ñu mujj fenn lu dul yàlla jàpp ñu ñu sóob ñu ci biir bàmmeel yàlla taxañ ñu ba mu dëgër daal ñuy sànni biir jahannam yaa ngeen ci alquran yàlla ba mu ne malaaka yi xuzu fa gullu summa aljahima sallu summa fi silsilatin zaruha sabuna zira malaaka yi dañoo tiit ne yàlla lu ko waral mu ne innahu kaana laa yuminu billahi alazim loolu moo waral ñu takk ko takk boobu loolu moo waral ñu yeew ko yeew boobu loolu moo tax ñu rokkos ko ci biir jahannama kon ci weeru koor lañ nekk nañ delloo si suñu xel bu ñu topp seytaan bu ñu topp bëgg-bëgg adduna bu ñu topp ay àndandoo bu ñu topp ay xarit bali yàlla subhanahu wa taala bëgg ñu bañ ko def اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصحباء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله